jërë ngeen jëf euh, mbokk téléspectateur yu télévision prestige tv dal leen ak jàmm ci xibaar yi bokk ci euh, li ci gën a fës dañu koy door rek jàngoroy coronavirus euh, bi wéy di lëmbi askanu sunu gaal tey ci arxamis gi la yem ak juróom-ñaari fan ci weeru janvier xam ngeen nag lim bi daal dina yokku lu tolloog 220 220 personnes jàpp nañuy amee li nga xam ne moo di jàngoroy coronavirus juróom jot a faatu ci ñoom daañu ci docteur dikk ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi waaye daañu wax ci leneen mu soxal nag gouvernement bu Sénégal bi nga xam ne saa su ne dañuy jàkkaarloo koy taskatu xibaar yi amal nañ ko foofee euh, ca diwaanu Ndakaaru jawriñ di ñu dénk biir réew mi ak ki ñu dénk euh, wàllu santé Abdoulaye Diouf saar euh, ñoo ko doon amal dellusiwaat nañ nag ci li nga xam ne rek moo di situation réew mi rawatina ci lii di jàngoroy coronavirus daañu si dikk ak moom Abdoulaye Diouf Sarr ci biir xibaar yi waaye daañu dellusi fii ci diwaanu cees wax nag ci li nga xam ne moo di mbale mbedd mi nga xam ne ñenn ci askan wi ñu ngi koy amal lëkkaloo seek lii di UCG soxna Roqia Dieng moo ñu fa teewaloon loolee incha allah daa ngeen ko am euh, ci biir euh, xibaar yi lii daañu si toftal euh, xibaar yu ñeel biir réew mi ak lu ñeel bitim réew daal di koy ndar keppe wàllu tàggat yaram ak fàllu ndaw mbokk yi lii moo di ponk xibaar yi faram-fàcce gi ne suur lay doon. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision précise TV tey ci alxames gi mook euh, juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn xam ngeen nag li mu coronavirus mu ngay wéy di lëmbe askanu sunu gaal euh, tey jile lu tolloog euh, ñaari téeméer ak ñaar fukk ci ay cas la ñu jot am juróom nag jot ci ñàkk seen bakkan ci jamono joo xam état du Sénégal daal dinay décréter li nga xam ne état d'urgence ak couvre-feu docteur El Mamadou Ndiaye moom lañ ciy teewlu ministère de la santé et de l'action sociale Gatna résultat examen virologique yi may waaj a lim ci Fuk ak juróom-ñaar téeméer ak juróom Fuk fukk ak juróom ci test yi def ak ñoo ci positif ci positif yoy, amnanti nañ ci juróom fukk ak juróom benn cas contact mooy ñi jot ci mi fekk dañoo jaxasoo ak ñu doomu amuñ ci benn cas jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay communautaire lañ mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk xamuñu fuñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëdde Kawlax am na ci fukk ak juróom Tuuba am ci fukk ak ñeent fukk ak ñaar ci Dakar Plateau ak Kër Massar juróom-benn ci Mbour juróom ci Mbaaw ak Tiwaawoon ñeent ci Xombol ci Mariste Ouest Foire Parcelles Assainies Saint-Louis ak Yoff ñett ci Castor Guédiawaye Louga Ouakam Sacré-Cœur 3 Sicap Baobab ak Vélingara ñaar ci Almadies Bambey Grand Dakar Anne Belair, Kafrine, Kebemer, Liberté 5, Matam, Mekhe, Padoua, Rifusque, Sangalkam Akies. Ben qui Amitié 2 Ben Tali Cité Biagi, Cité Magistrat Derkle, Gepel, Face de l'Orme, Gultapé, HLM HLM Grand Médine HLM Grand Yoff Kër Ndiaye Liberté 1 Liberté 3 Liberté 6 Mamel Mermoz Pikine Point E Richard Toll Sakal Scat Urbam ak Thiadiaye téeméer ak ñett ci malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki dinañu génn bu ci yàlla ànde fanweer ak juróom ñoo nekk réanimation juróomi malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb alarba juróom benn fan ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan mu ngoog ñu sant ko gërëm ko moom euh, docteur moom a du Ndiaye ñu dellu nag wax ci leneen ak taxawaay bi nga xam ne état du Sénégal mu ngi koy am saa su ne euh, di jàkkaarloog way taskatu xibaar yi tey lañ ko amal foofee ca Ndakaaru jëwriñ ju ñu dénk bi réew mi euh, di Antoine Philips Diome dellusiwaat na nag ci taxawaay yi nga xam ne rek ay mesures noone la ñu leen jëlee ak li nga xam ne rek moo ñeel ci wàllu couvre-feu ak état d'urgence te ñenn ci ndaw ñi ki démb ci guddi nag ñu daal di lakk ay pneu ci mbedd Ndakaaru yi yi euh, kii di jëwriñ ju ñu dénk euh, biir réew mi daal dina ci euh, dellusiwaat ay kàddoom ñu teew la ko. démb dem nañ ci terrain bi am na yenn ci seen nattango yoo xamante ni sax daje nañ ak ñoom ci terrain bi ñuy def seen liggéey ci guddi gi waaye li ñu seetlu te di ko rafetlu mooy bi ñu génnee jaar nañ ci ay koñ ak mbedd yu bari yoo xamante ni amul kenn ku nekk ci biti ñu nekk seen ay biir kër am na nag ay quelques Euh, koñ yoo xam ni bi ñu fa demee gisoon nañ ñu génn foofu waaye liggéey bi nga xamante ni euh, force de défense yi ak sécurité waroon nañ ko def def nañ ko pour rétablir ordre mais loo xamante ni la du lu ñu gis lu jéggi dayoo wala loo xamante ni am na benn euh, kii bi ñuy wax mais ci li ñu gën a seetlu gën ko gis te looloo yaakaar naa seen meilleur seede yi nga xamante ni moom lañ ci am mooy seen nattango yi nga xamante ni ñu ngi woon ci terrain bi. pour l'essentiel fi ñu jaar yépp daje fa ak seen nattango yi euh, population yi te ñuy rafetlu loolu comprendre nañ ni mesure bi c'est avant tout une mesure qui vise à protéger les populations li ci topp nag liggéey la boo xamante ni tamit liggéeyu état la mais souhait bi mooy toujours que nit yépp respecté li nga xamante ni njariñu la di njariñu askan bi fofé la euh, descendi ci Dakarou euh, gouvernement du Sénégal don jàkkaarloog way taskatu xibaar yi xam ngeen nak ci jangoré coronavirus euh, kañu ko dénk mooy Abdoulaye Diouf Sarr ci na nak ci li nga xamné mom modi vaccin bi vaccin bi nga xamné jamono ji lëmbe na lol aduna bi mu japp né rek xeyna fi ci réewum Sénégal mom vaccin rek lañu japp né mom mo moo galankor yéene li nga xamné rek mom modi jangoré coronavirus te japp nañu né fi ci ay wér ñu dëgmal dañu tambalé vacciné ñi nga xamné ñom ñoo di sénégalais yi ay kàddoom ñu teewlu ko ñi ngi paree donc sottal mbir mi pour que fekk premier trimestre bi ñu mën ñu wax ban vaccin la ñu homologué pour que ñun ñu mën ko song pour que mu mën a teew suñu réew bon nag vaccin bi muy ñàkk bi mën nañ si am yaakaar lool fi may wax ak yéen actuellement maa ngi bàyyi ministère comité boobu ñu président wax ne ñu taxawal ko indil ko document bi rapidement te document boobu ma koy indil alarba comité boobu ñu ngi foofu di finaliser loolu. vaccin bi bu teewee danañu vacciner personnel de santé yi mooy ñu nekk ci kër docteur parce que ñoom ñooy gën a contacter virus bi. ñi xamante ne aussi dañoo am plus de 60 ans nekk ay mag te ñu seetlu ne ñu faatu ñu ci bëri ci ñoom lañu nekk ñooñu itam seen sëdd dina ñëw dañ leen vacciner lu mu gën a gaawee. ñeneen xamante ne aussi il faut que ñu vacciner leen mooy ñamay comorbidité ñu xamante ne dafa am feebar bu nekk seen yaram te bu virus bi duggee seen yaram daf leen di faagaagal parce que seetlu nañ ne ñi am hypertension artérielle ak diabète bu leen feebar bu duggee souvent daf leen di yóbbu bon ñooñu dañuy gaaw jàppal leen vacciner leen mais duñ yem foofu parce que le chef de l'État dafa nekk ci politique boo xamante ne aar Sénégal yépp daf ko soxal lool. bon Sénégal va mettre en place dispositif de campagne de vaccination pour que donc population nous manque pas donc mu ngoog ñu bàyyeekoo foofe ca ndakaaru dellusiwaat fii ci diwaanu cees ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi muy wàllu ceet gi ba tey xam ngeen nag UCG lëkkaloo na ak yenn association yu nekk fii ci diwaanu Thiès ngir setal li nga xam ne moo di mbedd bi Thiès yi loole nag ñu daal di koy sumb ndir euh, dugal seen loxo euh, ci li nga xam ne rek moom moo di xeex jàngoro yi coronavirus Roqia Dieng euh, teewoon na fa àndoon ak baax ñu teewlu ko. masque ci seen kanam bale ci loxo ci naaj bu tàng lañu yor lu jëm ci setum dëkk bi ci Thiès ñoo ngi seen liggéey ngir taaral mbedd Thiès yi kenn ci ñoom nag xamal nañu ni cofeel ak ngëm-ngëm bu matt lañu am ci seen liggéey tey tamit lijjantiwul benn yoon lu leen di nit yi di xoolee. am na am na ñoo xam ne rus nañ ko mais boo ko yàggee liggéey man duma ko rus man bépp métier boo xam ne rek jigéen da koy def ah même bu ko góor di def rek ñu ne métier la rek man rusuma ci man dama ciy naw sama bopp. ndax moo ma gënal leneen te ku ma ci fekk dana xam ne maa ngi ciy daan sama doole te li ma ciy ñàkk damay ñaan yàlla ma ci daan sama doole pour ëllëg moo ko lekkee mu barkel jox ci sama njaboot ba man lépp lu ma ci nekk rek du ma ci rus. te li moom boo ci liggéey ak yeneen yi il faut nga am naaj ndax il faut nga nekk ci naaj ba ker fekk la fa du dëgg. ñun moom dañ ko tàmm ñun moom wax dëgg yàlla amoon ñun problème te ñi ci nekk itam dégguñu ci kenn ku am problème wax dëgg yàlla. ñun lundi kees lañ daan bale même yu ñu takk nii ci lañ ko tàmmee ba duñu def problème ndax Talla Sylla monsieur le maire sunu maire lañ daa di bale depuis quatre ans et demi xanaa ñoo ngi ci lënd xam kon tàmm nañ bale ñun mo wax dëgg yàlla amoon ñu problème te ñi ci nekk itam dégguñu ci kenn ku am problème wax dëgg yàlla. ci loolu ñoo ñuy xamal ni ak ndimbal yu leen mairie bi di jox ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax sonalu leen benn yoon ci seen wérgu yaram Oulimata di ab ndaw bu toll ci digg dooleem te amul ben yoon kersa ci lu muy def moo ngi ñaax ñun ñoo leen li ñuy li ñuy li ñuy liggéey moom la ñu moom la ñu moom la ñu yoree suñu yaay moom la ñu yoree suñu suñu suñu doom yi. man de man de sax sama morom jigéen li ma leen di wax mooy kaay lañ liggéey si liggéey liggéey bi liggéey bi moom benn bi am si benn bi am si problème xam-xam lu bon ah sàcc ak njaaloo bañ moo moo baaxul daal. xam fi nekk liggéey bi. naan nag ñun ci ñun gis nañu suñu bopp baax a baax. ñoo ngi yëgal askan wi ni liggéey yépp baax benn jarul xeeb lu war nag mooy mu nekk seen ñàkk te nekk lu leew. dañuy daal di nag euh, tàbbi ci euh, xibaar yi ñeel biir réew mi soxna Aminata lii lañ ciy teewlu. ñu tàmbali xibaar yi ñeel biir réew mi ak toxum ñaxtu yi ndaw yi amaloon démb ci quartier yu bare ci Dakar ak banlieue bi ngir sàkku rekk ñu dakkal couvre-feu bi ñu instauré ni ci démb ngir wàññi kaay yi takk der yi jaaxle ba woo ay renfort ngir garder euh, RTS ak avenue Blaise Diagne ak itam rue bu Médina bi nga xamante ni ndaw yi dañ fa bëri woon lool bu ñu sukkandikoo nag ci l'observateur fale ca caaro yi ndaw yi doon manifesté wu dañoo bëggoon a euh, yàq post de police bi waaye ci affrontement yi kenn ci ndaw yi moom am na ay gaañu gaañu ba ñu yóbbu ko hôpital ci loolu nag njëwriñ bi ñu dénk biir réew mi di Antoine jom wàcc na ci koñ yooyu le ngir def saytu professeur Omar Faye Mom and na ci vaccination bi ngir dakal deuxième vague bi ndax nee na solution bi gën ngir ñu joggé ci mbass mi ba faawa mu ko waxé nak ci soleil nee itam dañuy nangu vaccin bi épidémie dem ba faaw wala rek ñu bañ kay yi di nee na itam euh, chance la ñu am vaccin bu ARN ñu jeexal xibaar yi ñeel biir réew mi ak xalif général di murit di sëriñ Muntaxa Basiru ci yokkute kaay yi jamono yi moom nag sàkk woon na ci taalibe yi ñu respecté digle yi euh, kër docteur yi joxe ci xeexum mbas mi alarba bi nag jël na dogal dakkal audience am yépp ba jimi jamono di leen leen indiloon ci xibaar yi ñeel bitim réew ñu leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. mu ngoog sant ko gërëm ko moom nataal Ly noonee lañuy ñuy sóobo xibaar yi ñeel nag biti réew ànd si ak Mamadou Dione. xibaar yi yetteel bitim réew ci seen télévision régionale prestige ñu daal di ko dooree foofee ca Amérique. nit de daal na ñàkk seen bakkan lu tolloog juróom fukki nit ak ñaar ñoom de daal di leen jàpp foofee ca Washington foofee xam ne mooy capitale fédérale bu États-Unis démb nag la mbir yooyee am. ginnaaw ay ñoon ñi xam ne ñoo fare ci euh, ki nga xam ne mooy président Amérique ba woon di Donald Trump euh, duggoon rek ca siège congrès américain euh, ba ñu doon amal nag la jëm nag ci watep eggale résultat yooyu wala firndeel rek ki gagné ca élection yi amoon ca Amérique. Euh, ci ngoon sa nag ab conférence de presse boo xam ne na am ci guddi gi te ki ko def nak police bu washi chef police bu washington mu daal di xamle nag lu tolloog ñeen fukki nit ak juróom ñaar ci juróom fukk ak ñaar yi xam ne jot nañ leen jàpp daal dañoo laalee ci ñi ne nag respecté wul wax couvre feu euh, dañ ko ville washington goge. te ka ko nag euh, jëmmaloon mooy maire ba ñu koy wax Muriel Bowser euh, la waraloon nag mu décréter couvre-feu boobee mooy euh, yëngut yi amoon foofee ca Amérique nag dem fële ca Ghana armée Ganaade moom moo daal di wàcc ci guddi alarba juróom benn fan ci weeru janvier jàpp alxames juróom ñaari fan daal di dugg nag ci assemblée nationale ba ngir dal àtte député yoo xam ne ñu nga doon xeexu ña xam ne ñoo fare ca parti ba nekk ca nguur ga ak ñi xam ne ñoo nekk ca kujje ga ñu daal di gis ne nag xëccoo ya daal métti woon na lool ba ñu doon tabb ki nga xam ne mooy président bu chambre boobee ci loolu sax ay gëstukat daal daal ñoom de daal dinañu méngale eh, xew-xew yooyee ak la jotoon am eh, ca réew ma États-Unis jeexalee xibaar yi teel bitim réew ci euh, cong bi am nag ca euh, foofee ca Cameroun euh, convoi bi xam ne nag moo escorté woon préfet bu département bu moomu nekk ca bët ganaar jàpp ba tëb soowub Cameroun te nekk ca région anglophone boobee convoi ba nag moom la ñu attaqué nag ca guddib talaata jàpp alarba lu toll nag ci juróomi nit dot nañu ñàkk seen bakkan am ñett yoo xam ne dam am nañu gaañu gaañu yu métti ginnaaw buñu leen amaloon nag wala gi ñu leen attendre ab embuscade ñu jàpp ne nag bilan boobee sax nekk na bilan boo xam ne euh, lu diis la wala du métti la euh, la jëm nag ci wàllu soldat yi xam ne ñoom lañ leen rey ca région anglophone boobee euh, boobak nag ci atta ngi nii daal nemmeeku ñu mukk ab jéeya bu mel ni am ca dëkk boobee di Cameroun mu ngoog sant ko gërëm ko moom euh, Mamadou Dione mi ñu doon euh, jukkil xibaar yi ñeel euh, biti réew noonee lañu koy ndarkeppe ak xibaar yi ñeel tàggat yaram fàllu ndaw lañu ci àndal ñu teewlu ko gannaaw bu Tëngéej euh, gagné qualification ci Ligue des champions Jaraaf bu Dakar moom it dem na Abidjan daan San Pedro ci ñaar bal ci benn waa Jaraaf yooyu nag euh, gannaaw bi nga xamee ne dañoo amoon ab jël fii ci stade la Dior goney Malick Daf yooyu nag def nañu ak ndam historique qualifié nag équipe ba ci deuxième tour Coupe CAF comme ni ko ci FC defee Jaraaf bu Dakar moom it qualifié na qui match de poule yi coupe CAF jaraaf nak dina and ci qualification bobu ak équipe bu melni Orlando Pirates bu Afrique du Sud Estif bu euh, Tunisie Berkane bu Maroc Étoile du Sahel bu Tunisie AS Kigali de euh, Rwanda euh, Coton Sport bu Cameroun ci ñom nak dinañ and ak lu tollook fukk équipe ak juróom ben ñoo xam ñom ñoom ñoo qualifié ñuy japp tamit ne ñi nga xam dañ leena daan ci deuxième tour Ligue des champions ñoom it dinañu ñëw euh, fekk si euh, équipe bu jaraaf boobu équipe bu mel ni Raja bu Casablanca te nga xam ne Teungueth FC moo ko daan ñoom dañ leen reversé ci coupe CAF bi équipe yi nga xamné nak euh, reversé nañ leen ci coupe CAF bi dinañ ci cité Ganaw Raja bu Casablanca dinañ ci cité équipe bu melni Al Ahli bu Beygazi Racing bu Abidjan euh, ñoom it dinañ nek fukk équipe ak juróom-benn wara a jongante ci match deuxième poule match poule yoy ci coupe CAF ci coupe euh, Ligue des champions nak Teungueth FC ci la bi nga xamé ne qualifié na ci match de poule yi dina and ak équipe yu melni Espérance bu le tout puissant Mazembe bu RDC Wydad Wydad bu Maroc Petro Luanda bu Angola Al Ahli bu Égypte Zamalek bu Égypte Orea FC tamit bu Guinée euh, euh, Conakry gannaaw bi nga xamee ne ñoom dañoo daan Racing bu Abidjan benn bal ci dara mu mel ni de match de poule yooyu ci Ligue de Champions yi dinañu ci gis match yu méttee métti football euh, ci Europe Ligue France jongante nañu seen fukkeelu ayu bés ak juróom ñett Lyon nag mooy wéy di nekk ci place bu njëkk ba gannaaw bi mu daan daane Nice ñaari bal ci dara Paris Saint-Germain dafa dem fekki euh, Saint-Étienne Timbuk moom benn ak benn la ñu def Paris Saint-Germain moo nekk ci ñaareelu place ba Angers dafa dem fekki Lille daan ko ñaar bal ci benn ba tax na Angers moo nekk ci juróom-ñaareelu place bi liil nekk ci ñetteelu place bi Marseille dafa daan Montpellier ñett bal ci benn Nantes ak si ñoom dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa kaw morom ci Italie Serie A fukkeelu ayu bés ak juróom Juventus bu Turin dafa dem fekki AC Milan daan ko ñett bal ci benn ba tax na Juventus ma nga ca ñeenteelu place ba AC Milan muy wéy di nekk ci place bu njëkk ba euh, rawee Inter de millan mi nga xam ne Sampdoria bu chen da ko daan ñaar bal ci benn rawee na ko benn poñ Inter nekk ci ñaareelu place bi AS Rome moo nekk ci ñetteelu place bi gannaaw bi nga xamee ne dafa dem fekki Croton daan ko ñett bal ci benn coupe ligue bu Angleterre xam nañu léegi ñan ñoo gagné ci euh, demi finale yi Manchester City euh, ci ñaareel demi finale bi dafa daan Manchester United ñaar bal ci dara ci talaata bi déjà euh, Tottenham ci demi finale bu njëkk ba dafa daanoon Bradford ñaar bal ci dara. ca Espagne ñaareelu journée retard lañ jongante FC Barcelone dafa dem fekki euh, Bilbao dan ko ñett bal ci ñaar ba FC Barcelone mo nekk ci jamono ji ci ñetteelu place bi am fanweeru poñ ak benn ci gannaaw Atlético Madrid mi nekk ci place bu bi am fanweeru poñ ak juróom-ñett Real Madrid mo nekk ci ñaareelu place bi am fanweeru poñ ak juróom-benn. handball lañ koy jeexalee ligue bu cees nag waroon na rek yee salaat ay instance am moom day assemblée générale bi nga xam ne waroon nañ ko am démb mujj ñu ko def la ko indi nag mooy ay jafe-jafe yoo xam ne amoon nañ ko ci procédure ci jamono ji nga xamee ne rek waroon nañu dugg ci biir saal bi pour tenir assemblée générale bi dañ leen a toppal mbir yooyu ba xam naka la wànnent di mutee ak ci gëtëm. mbokki jër jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar ñu jaajëfal leen ci ànd beeg seen télévision bu Prestige TV jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jër ngeen jëf.